alaikum adina, salam alaikum senegal mbokki Dakar Actu ma ngi nuyu ñep di jiital ci nuyoo bi Serigne muntaha bashir diko ñaan mu yag fi tewer di ñaanal sunu buntu ci Serigne toba Serigne Cheikh mu Serigne saliw ak njabotu Serigne saliw gep buur ma ngi lay fay bu baax a baax album bu bes adina, ak lu ci biir. Hmm. waaye li ma avant album bi moom it gis la ko njënd. ci benn vidéo mu taxaw ci kanam Cheikh Abdoul Karim di yëkkati ay béy yu am solo yoo xam ne jëmale ko Cheikh Mouhamadou Fadel mhm. sa relation ak Cheikh Abdoul Karim waaw xam nga mooy li may wax toujours rek relation taalibe ak sang boo nekkee ci yoonu murit di werkaanu Serigne Touba mhm. da ngay jéem a roy mag ñi nga xam ni moo tax ñu naan werekaan mhm. te ñu indi fi woy muy ku mel ni sëriñ Moussa Ka sëriñ Mbay Jaxate mhm. sëriñ moo Kay rek Cheikh Massamba jaar Mbay mhm. nga xam ni ni ñu daan taggee sëriñ bi mhm. noonu lañ ci daan booleeg njabootam gi ñun nag ci yoon woowu rek lañu fas yéenee aw loolu moo waral euh, bi ñu sëriñ Fàllu ñu dem seeti sëriñ Abdou Karim euh, noonu it la ñu amee woon yéene seeti doomi sëriñ Fàllu yépp waaye ku ma xam-xam ni euh, doomam ji ñuy wax sëriñ Modou Mbàkke dama am ak moom ak jaxaso bu upp daanaka euh, lolu sabab na ci li tax sama dem ci seigne Abdou Karim gëna yomb waaw te it xam xam ni li nga xam ni mom la suñu borom dogal ci mom mm, mbirum suñu borom la bayro bi ko yalla maye fi mu tollu ak ni mu mel ci xol yi lolu yalla moko def. mais kërëm begg na. lolu amna lu mu wax ak yow. waaw. <laughs> waaw ndeysaan dañ koo tegal woy wi mu di ko déglu mu jékki-jékki ba mu yàgg daal di yéemu ci paroles yi mu jékki-jékki ba mu yàgg daal ne lii doy na waar de jékki-jékki waat ba mu yàgg daal ne lii moom surum le na waaw nga xam ni baat boobu baat bu ma gëj a dégg la sax <laughs> ci laa xam ne woy wi dugg na ko ci laa xam ne woy wi dugg na ko te it euh, ñun ñun li ñuy sante suñu borom d'abord mooy suñu woy maanaam amuñu tiitaange ci kilifa déglu ko mm-hmm. ndax way wóor nañu ni kilifa ku ko déglu amul benn xeebagee boo ci am lu dul yokk ci ci sunu borom te loolu nag ki ñu ko defal du kenn ko dul Serigne Saliou mm-hmm. loolu moo waral ñu am tawféex ci bu ñu ñun balaa ñoo gën a mën a yëg suñu way dëgg sax jàkkaarloog nit suñu borom mm-hmm. ndax ci lañuy mën a xam euh, li ñuy wax ci moom lañ koy gën a mën a njort mu mën ko dégg waaye way yi maanaam ñu bari mënees nañoo topp rythme yi rek topp euh, mélodie bi mais du xam dëgg dëgg la ñuy wax ndax fa ñuy toll di ko wax foofu suñu borom bu la fa yóbbul doo mën a dégg wax ci. source d'inspiration bi Mouhamed. waaw am maanaam rapidité ci plainte bi. Mhm. ndax ba boo déggee waxi maam Ndiame. Mhm. dafa ne bu ëllëg yombal xiyaame ba ay arab tiitaloo ay waxam. Mhm. dinaa wax Serigne Touba lu tax am arab wa dem. ndax waxi wolof ak yaar waxi yëpp a yem. dafa mel ni moom la ñu dafa maanaam dafa am source d'inspiration bu. bu xaw a gaaw macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu Serigne Saliou moo ko def ndax li tax mooy day sëriñ Touba maa ngi koy junj ci woy yi doomi sëriñ tubaa yépp ay sëriñ Touba lañu waaye mennum sëriñ saaliw la ci sëriñ Touba joxor bi ne ko Saliou mooy man may moom te wax jooju xam-xam moo koy dégg. dégg googu nga xam ne xam-xam a koy dégg looloo waral sëriñ Moustapha mii taawu Serigne Touba ne ko jox naa la sama kër gi ci mbuur ci nga nangul ma ni maak yow ñoo bokk bàyyi xam nga loolu kon la tax mu def ko leneen la sëriñ Touba it ci menn moom rek lañu déggee ci xaside yi mu bind ci bindum boppam ni muy sëriñ Saliou bayit bi siiw na ñëpp di ko wax muy leen xaarite bu jur wal ma Saliou bi tey wal jës bi wa indi Saliou yaa ngi dégg loolu nga xam ni sëriñ Saliou doon na ko te muy dëgg dëgg sëriñ Touba sëriñ Touba ku ne xam na ni xam-xam bu nit mës a am ci yoonu murit moo xam woykat moo xam ngay loo mën a doon jaloore boo dégg mbër def ko ci yoonu murit Serigne Touba def ci yow. dafa mel ni moom ak ñoom Serigne Saliou la laa doon jëm. loolu yi nga xam ne Serigne Touba moom la def ci mag ñi loolu la Serigne Saliou defaat ci gone ñi. Hmm. boo gisee Serigne Saliou ñëw maanaam euh, boroom xel yi xam ni kii muy sëriñ Touba bi mu ñëwee daal laaj ndaw ñi te ku ne xam ne ndaw rek la say seytaane soxla mu kar ndaw ñi seen diggante ak seytaane def ci ñoom la Serigne tubaa daan def ci mag ñi loolu yi moo feeñ ci ndaw ñi feeñ di dox baat si ci man loolu moo waral ma wax ci woy wi daan ne jàng may jàngu may xaroon bayaan ah ñépp a nangu ni yaaraw ñaan géej gi ñépp naa ne way yaa ma nuur ca biir may feey daj naa feggu yàgg ber ya mbaalu mool dajul xor ya loolu looloo tax may junj loolu mm-hmm. xamante ni moom mm-hmm. euh, mm-hmm. dem ci moom du waaw day dem ci moom ndax ku ko xam-xam ni mooy taaru yoon wi ndax looloo looloo ngi looloo ngi jóge looloo ngi jóge ca woy juróom bu tedd wa di sëriñ Basiiru ba bañ na ko ba bàkkam mooy boroom taar wi kon taar woowu moo rogalaat ba ci moom mu sagal nu nag sëñ bu taxa sagal nu sagal lislaam gépp sagal àddina rawatina ci jëfam ju réy nga xam ne def na ko ci ndigalam lii mu joxe muy màggalu Tuubaa gi nga xam dañu ziar bu yàggul nga ziar bi ko mm-hmm. mu am wax yu mu wax ak yow mm-hmm. kaddu yooyu nag li ci làmmiñu borom la dàqee ndax jëmm ju nii suñ chaax mm-hmm. ku ne xam ne nit ku dëggu la ku sell la nitu yàlla pire la bu wér donc bu demee ba jokkalante ak moom it kaddu yooyu am na bëtam fu mu ko teg ci moom it ña wala am na yaakaar ju moom macha allah loolu it di ma di lu ma lu neex nga ma wax ndax Euh, lii nga wax nii xam-xam moo koy dégg lii kat moo may wane yow mi boroom xam-xam nga <laughs> ndax ñooñu ni nga ko waxee dañoo dañoo dañoo jege suñu borom te lu dul suñu borom takku leen waaye man damay wax ni toujours bi ñu nekk ci daara yi doon gone xamuñu woon doomi Serigne Saliou bi mm-hmm. dañ leen daan dégg rek rawatina sëñ Cheikh sëñ Cheikh dongo yi dañ ko daan dégg rek waaye xamuñu ko woon ba ni may jógee ci daar ji ba ni may doonee werekaan di way mosuma dajeeg sañ Cheikh lu dul di dégg ay jaloorem waaye keroog bi ma jàkkaarloo ak moom yeesal sama njëbal ci moom la ni ma maa ngi ñaan fépp fi nga bëgg a yegg yàlla na nu fa sëriñ tubaa yóbbu daal di wëlbati ko daan ni yàlla na nu fa sëriñ tubaa yóbbu mm-hmm. daan ma nag la in shakartum la azidannakum mm-hmm. ndax boobu dama ne ko mbàkke day maa ngi lay sant mm-hmm. ci dimbali gii ngeen ma dimbali ba yéene ji ma am ci wane seen wayjur wu tedd wa maa ngi leen ci sant seen ndimbal a ngi ñëw saa su ne mu ne ma ne la in shakartum la azidannakum sunu borom moo waat ci aaya boobu ci alxuraan ni ku sant dana la dolli daan ma na rafet njort ci bayit woowee ba ñu fa jógee ma delluwaat fa siyaare ji ko waat bi ma ko siyaaree boobu fekk na ma génn woy wi nga xam ne moom laa ko woyoon ci album bële di ndongo daara mu déglu ko yàlla yàlla def ndax euh, may man la yàlla njëkk a dogal ma woy Serigne Cheikh mm-hmm. ndax ni nga ko waxee fi mu toll suñu borom mm-hmm. dafa am ñoo xam ne boo leen woy boo amul xam-xam doo leen woy mm-hmm. ndax fa ñu nekk la wala duñ ko nangu ay ndokk ba mu déggee fa muy waxee daal di may woolu ma ñëw mu yëkkati mbubbum boppam daal di may jox yëkkati ay dàlli boppam jox ma yëkkati ay parfum teg ci yëkkati koppar yu bari jox ma man dama wax ni depuis ma seigne Cheikh joxe mbubb la rafletul bam ma joxe copper la ñakatul bam ma joxe dal nak la xam damay dem <laughs> album bi euh, ni danima uh-huh. na nga fas ci sab xol li ak sab yene ne li ngay def liggéeyal Serigne Touba la xamoon na ni lima don def liggéeyal Serigne Touba la waye seigne Cheikh gën na ma ko xam nga le seigne Moussa Ka waxone seigne bu mag bi manako mune ma seigne Moussa Ka dana won seigne bu mag bi waral Moussa lamagn wo melni ni lem suy wax jinneeg rab ñëpp daal di gëm wala fakub yaarama yam lu jeng lu juk ngir rasulallah batin ba sa xorom mune ma waye lu juk ngir seigne salih batin ba saf xorom kon kooku xamna digg na fa <laughs> waaw nak mo waral sa xorom googu nak mo indi li mo indi sëriñ bi def ma ci xolu jam ñep mo waral sëriñ bi def ma ci xolu jam ñi album bi ren ah. wàllu structurel eh, album mm. mm-hmm. waaw xam nga man toujours damay wax ni leader bi nga xam ni eh, yàlla dogal na ko du man maa ko man maa ko musuma ko musuma toog ba bàkkoo ko ba sax mel ni lu ci lu koy junj. waaye dem naa nag ba doomu aadama yi waxal ko seen bopp jëfal ko seen bopp te mu yàgg lool. ndax mën naa ne depuis bi ma doonee woykat di gone mm-hmm. man bi may soog a fëll ci cant gi mm-hmm. Cheikh Béthio ma tuddee woon c'est la révélation mm-hmm. yaa ngi dégg daan ne gone gii nangeen ko bàyyi xel depuis boobaak léegi noonu la ma sunu boroom tegee loxo lu ma def mu saf àddina loolu nga xam ne nag yàlla def na ma ko mooy li sëriñ bi di wax naan am mbir te xamoo kon ñàkk ñàkkoon ko te wuti ko sax ko gën yaa ngi dégg xam googu nga xam ni du ma ne xam naa lépp waaye am na lu ma ci xam moo waral saa su ne bu ma xamee ni kat sëriñ bi moo ma jiital te macha allah tey bu ñu demee ba kuy woy ci wàllu rythme bii ñuy woyee yaa ngi ko jàngee ci Mouhamed Niang kon man mi nga xam ne nit ñi jàngee nañ ko ci man damay fexe chaque jour may créer loo xam ni su ma ci paree nit ñi topp ma ci loolu waaw loolu yëpp ñu jublu rek jëm ci sëriñ bi mhm. loolu mooy suñu loolu moo ci suñu yitte mhm. waaw kenn mënut a wax cant gi te kenn tudd sa waajur Cheikh Béthio mhm. tey à travers way moom ak ñan daan way tax na la majeure partie de la jeunesse xamoon lan mooy cant gi ak xamoon lan mooy Cheikh Béthio parce que dafa demoon ba bokkoon ci identité canta cantakoon man mii personnellement bu ma gëstoo l'histoire des cantakoon c'est grâce ay way yi Mohamed Niang daan way ñu di ko dégg mhm. tey Cheikh Béthio dund tey jot na nit ñi xam diggante moom ak diggante Cheikh Béthio relation doom loolu ak baay waaw relation doom baay waaye relation maam ak sët waaw waaye relation sang ak jaamam mhm. lenn lu ci ne euh, lu ñu dund la ak moom mhm. ndax soxna Bambi Thiam mi way juram mooy sama bàjjanu ndey kon moom. ak mbokk la d'abord ak mhm. ñu bokk làmbeen mhm. muy sama maam di sama lépp. Mhm. ba noppi di sama xaritu way jur ñu yàgg ànd sama sama sama doom sama doom yi baay yi mujjee judd xale yi ñëpp moo leen tudd ci loxoy boppam. ñii mu tuddee leen ci ay soxnaam yu mag. kon loolu relation bu yàgg la. relation wu wayjur la ak doom ñu dem nag ba sëriñ Serigne Saliou Mbacke def lii mu def ci moom boole ma ci nag ne ma nag liggéey bii nga xam ne moo koy def yow mii yaa ciy ànd ak moom loolu moo waral keroog ba mu ne Serigne Saliou Mbacke danaa la sant ba Nations Unies ma bokk ci ñamu àndal yóbbu leen biir États-Unis biir mm-hmm. Nations Unies mm-hmm. loolu di ay tawféex yoo xam ni dañu ko mm-hmm. gis naan même cantine màggal daanama ñan mhm. maanaam say dëgg la ndax waaw moom ku ko xam-xam ni li ñu xam xam-xam bi ñu am tey xam-xam bi ñëpp am ci Serigne Saliou soxlaay wax mhm. li ma koy wax ci woy wi naan ko nii la gaa ñi daal rombee xayam nga muy toog mhm. yow nga ñëw ni moom moom ruu yi Serigne Saliou ndax Serigne Saliou nen nee na nee na ci yoonu murit ne ci këram gii ñu bari xamuñu ni mooy doomi Serigne Touba ngir na mu meloon ci wàcce boppam sëñ Béthio nag moo ko daan fekk foofu di ko jokkar bi ak di woon àddina naa leen kaay leen Serigne baa ngi nii. Mm. kon tey bu ñëpp xamee ci Serigne Saliou Mbacké li ñu xam ci moom joué na ci role boo xam ni kenn fekk ko ci. Mm. yaa ngi dégg mm. xam-xam boobu nga xam ni Serigne Saliou d'abord moo ko dimbalee mu xam xam-xam boobu ci moom xam-xam boobu la wàll képp ku ko topp. képp ku ko topp xam-xam boobu la wàll ci yow. loolu moo waral xam-xam bi nag day day day ëppante kem kenn ku ci ne sa pëste fa mu toll loolu moo waral man yàlla dimbali ma ci nag may doomi géwél ba nopp noppi xam nga boo doonee géwél di woykat ba pare boole ci xam-xam day ëpp te moom ku ko xam-xam ko ci dégg maanaam ni ma daan déggee ci way maanaam dama daan xolal comme nii xale yi di def nga xam da ngay woy sa ñu saaga jékki-jékki sax saaga da daan da ko daan def ci samay way nga xam ni léeg nga diglu woy rek daanu rek daal di tifaar te ko daan def def na ko ba tàyyi ci fi ma fi ma koy fekk ci mbég ngir cofeelam ci Serigne Saliou Mbacke fa daan toll yaa ngi dégg te loolu nëbbu ko woon mosu ko nëbb ba ci sama mbokk woykat yi fa muy ñi jiitu ñi mujjeeg ñi waaje ñëw ak tàmbali ñëpp toog nañ mu ne leen ñëpp mën nañu woy waaye Mohamed ñang ni mu mel yalla moko ko def. Mohamed ñang ni mu mel yalla moko def dafa melni ci ginnaw wala bes ba mu làqoo ci la adina maase gën gëna gën gëm ni ko Cheikh Ousseynou Sall bu wér. waaw kéro biñ na tagge Cheikh Béthio. bu tukki aduna bu jaxaso aduna bu metti ci ñëpp d'ailleurs lolu mo waral xam nga déjà da ngay nekk ci mbiri di dem di def. mais doo sax xam li lay def loo li ma galoo sama ménager di wax toujours naan ma dañuy xalaat rek waaye lépp Serigne Saliou la dama dem studio di enregistrer sama album ma def 10 titres man des waa dama su ma demee studio damay enregistrer bàyyi ay morceaux bàyyi ko fa bi ñu enregistré 10 mooy muy album Ndongo Daara bi morceau bi nga xam ni moom laa ci moom laa ko sargalee mm. rendre ko ci hommage génnewuma ko ci album bi gaa yi ne ma lan moo tax dugaloo leen ko ci album ma ne leen bisam jotagul billahi wallahi wa taala ba ma koy wax loolu sax taxul waaye ngir wane ne rek dañuy dem nii rek waaye xamuñu li ñuy def loo yaa ngi dégg morceau bi bokkul ci album bi ba album bi génn def lu muy def ñu teg ci diir sëriñ bi def secret bi mu def ma jëm studio ci laay jaañ génne morceau boobu. lan foofu la ñëpp jooy. ko. lan nga ko waaw xam nga man sëriñ Saliou du ma ne xam naa way dëgg-dëgg du ne it mën naa ko dëgg-dëgg waaye Serigne Saliou may na ma dégg Serigne Saliou may na ma kilifa gune mën naa xam nan lay way nan lañ lay wayee. mëna mëna ham xam nu ñuy woyé ku dem mëna xam nu ñuy woyé ku fi nekk ak ku fi newul mëna mëna woyit ni ñuy woyé ni ñuy ni ñuy ni ku fi newul ko xam ni dañ ma netali suwaram rek mëna ko woy lolu mo waral nit woy woow am différence ak woy yi ñu daan dégg ajaajëf sëriñ man bulay fal dalay ar ñagal ba doo yàqu doo yàquleeti sa mbir jag nga am ndam sëriñ bi sëriñ saaliw sampam du daanu bu nit ñépp booloon di sempi malaaka yëg ji ne ànd dem ci du taa samp ba daanu yàlla pexem yàlla moo tiim pexem nit abba yàllay fexe nit xewul nag iñaan yaa kawuteeg dogal yi ba muy xew-xewoon sëriñ bi lu nit ak lu yàlla seex bi bokkul sawaaj ja bokkul ci gaañi sëriñ saali way kenn waaji amul mis lu jëf jaa ngi siw bu leen juum bu leen naax sëriñ saaliw kenn rek la seexal cër booba wàcc saawa nag wi wenn la sëriñ saaliwoo ko wax te siw jaawale cant ke moom bu leen jàng lan fi daa wax ki moo xëy ren di bernde e waaye daw si leen cant raw na wiyoon rekk a gaawu wiyoon rekk yees wiyoon am dooli seex bi lu dul lu cant buña amu ca e waaye daw si leen cant raw na lu yéeme loo

tey Mohamed cant gi daanaka lu bari fi la fekk. Mhm. ci cant nga di doo ci nga màggee ba toll ni toll. tey doxalin bi lan la waroon a doon tey pour que cantaku ñu nekk benn. waaw man de xam naa duma ci sori waaye de lenn laa xam ni mën naa ko ci wax mooy man de wóor na ma ni Serigne Béthio mi cantaakuñ yëpp bokk yaakaar muy waa camp di waa camp bii. du ma ne sax camp man benn camp laay wax toujours ni ma koy waxee mooy ñi tegu ci siratal mustaqim mooy ñi ànd ak sëriñ Muntaxa ci ndigalu sëriñ Touba gi waaye waxi wolof ma waxee ko noonu wóor na ma ni bu fi sëñ Béthio nekkoon li sëriñ li sëñ Muntaxa wax lay def ndax moom ci lay ànd ndax ku ne xam na ni sëriñ Sidi Mokhtar yàlla na sunu borom dolli ay leeram ak i mbégam bi mu fiy nekk te sëñ Béthio am lu mu defoon ñëpp digg ci kàddoom ca seex sa te ba mu ko waxee ca saase la ko cheikh bi dindi te yamu ci dindi ko dana ko mbàkkee sama ba sax boo ko bëggoon ma dindi ko kon kooku xam na lan mooy xalifub Serigne Touba xam na lan mooy ndigalub Serigne Touba kon ku juyoog moom ci ay kàddoom ak ku juyoo moom ci ay bëgg-bëggam yow yaa xamul Serigne Béthio man loolu laay wax waaye ñi topp sëñ Sall gël tàppe te ànd ak moom ci ndigalam lii ñoom laa naan bu sëñ Béthio ñëwoon tey duñ defaraat seen toogaay loolu laa am lu ma ciy wax loolu laa am lu ma ci euh, laabire mm-hmm. loolu nga am ci loo ci wax loolu nga am ci loo ci laabire effectivement muy euh, wax ju wax ju wax bu wax bu responsable euh, war dafa ni leeral du weddi tuuma mm-hmm. waaye des fois wax am na fu mu toll des ko leeral mm-hmm. jamono yore ci ginnaaw moo nañ leen amoon fii benn problème boo xam ni presse ku ci nekk jëlee nga ko ni ko. Mhm. Dakar tey à niveau dañuy préférer dem ba gis le concerné. Mhm. waxtaan ci ak moom duñ ci bind duñ ci kii fekk gisuñu nit mhm. moom la ñu ci jamono. loolu la day euh, ci nii nga ko waxee nii sax d'abord ci wax ji rek man dama la ciy sant gërëm la ci ndax yaakaar naa nit lu muy wax lu ne rek war naa doon lu ko leer. war naa doon lu ko wóor bu ñu fàttee nii sunu borom dafa tënk lépp ci alxuraan mooy wax lu la wóoru wax lu dul dëgg des des fois da ngay topp àddina topp koom-koomu àdduna topp riirum àdduna ba fàtte wax ci suñu borom te loolu yëpp suñu borom da koy atte ëllëg loolu yëpp bu ñu fàtte suñu borom dala koy atte xaalis bu mu tax ngay créer loo xam ni dara du ci dëgg wala ngay wax loo xam ne dara wóoru la ci kon lii sa question boobu noonu nga wax dama la ci sant ku ma xam xam ni man du du ma wax kat mm-hmm. du nit buy dugg ci ay détails mm-hmm. waaye lii li tax ma ciy wax mm-hmm. mooy defam ay kilifa yoo xam ni bi mbir mi xewee dañoo jug dox ci ay jéego yoo xam ne man sama jëmmi bopp dama ci am mbetteel bu du woon ak loolu duma ci wax ndax ay détails la te it damay jaam boo xam ne dama nangu dogal yi suñu borom te am na ci loo xam ne boo ci xuus di ci wax day mel lii la suñu borom teg dalaa neexut te ma man may ma may boroom xam-xam xam am lenn lu ma xam ci sunu borom ci ay dogalam ak i nattoom mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. waaye kilifa yi nga xam ne ku ci mel ni soxna Baali Muntaxa mm-hmm. ba mu ko déggee nelawatul ku ci mel ni alaaji Mbàkke yu fay bañ ko déggee nelawatul ku ci mel ni Mohamed Silla ku ci mel ni Junior Lo waaw déedéet nga xam ni bi ñu ko déggee <coughs> euh, kenn nelawatul kenn ku ci ne yaa ngi dugg ko génn di xool lii nu mu demee mhm. ñooñu occasion laa am ci sant leen ci taxawaay bi te noonu ñu ko defee noonu la ko mbokki taalibe yu bari defee mhm. ku mel ni Bamba Njaay bu Rufisque di di di taalibe murit bu baax nga xam ni ñi ñi ñi ko def mënuma mënuma leen sax daj waaye loolu yëpp rek di ay dogali yàlla sunu boroom nag lépp lu muy def lu ne da koy wutal sabab mhm. waaye Eh, man moomeen ñang wax dëgg yàlla ku ma xam-xam ni nag liñ ne moom lañ may toppee ëpp dem ko waaw jox na la ko ba tey waaw rek ci ah. rek hmm. rek ci nit wàññi na lu ko ëpp jox ma ko démb hmm. ma mom nuyu moom euh, Ousmane Faye colonel bu por hmm. di nit ku baax démb la doon def birthday ñu ngi koy souhaité ñu dem fa démb ma ñëw mu wàññi lu ko ëpp jox ma loolu mën naa ne duma duma du dund semaine bu romb ta te nit deful deful man lu ëpp loolu ngir jëmmi Serigne Saliou. est-ce que ñu jàppoon dafa am des gens tapis dans l'ombre yo xam ne ñu bëgg tenir l'image de Mouhamed parce que c'est la première fois ñu dégg bon lu mel noonu. donc mm. wala a ak légui dëgg la ñaareel bi ampleur bi ñu ko jox. avec certaines médias man niveau bobu mo mo moo ma jàpp foofu laa problème. waaw est-ce que dafa am des gens tapis dans l'ombre yoo xam waaw loolu am na ci ndax. ku nekk ci yoon del sóoraale yu mel noonu ndax euh, am na ci loo xam ni doo ko sax sax bëgg xuus waaye ñu xam ni rek du lenn lu dul ay pexe nit nag mën na toog fa muy toog naan diw de mënoon naa def lii su ma doon maay moom du ma dugg ci li su ma doon maay moom du ma def lee fekk ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci millier bi chaque jour nga gis téeméeram ku nekk bitim réew yónnee la ay teraangaam ngir woy yi ngay woy sëriñ Saliou loolu liñ koy dund mu liñ koy dund xamul nu mu toll kon ci ci nit bu la ci bëggee pexee doo ko xam mënoo ko xam ndax chaque jour teraanga yi lay jox ngir Serigne Saliou ci foofu lay jaar am na ñoo xam dañ la ko yónnee sax te duñ la wax duñ la wax sax ne ma man la diw da ngay jëg dañ ñun doon ko sàkkuloo dara mo mel ñoom door xaliss bi après delu na addiye la xeetu yàq der boobu te mo ñoom di di ko am fami di am fu tollu ci chat gi lolu sa ka choqué wa lolu yëpp ay tuuma rek la hmm. ndax ni mu démé lu simple la nit ko yëkëti alalam di la may yaakar ci yow dara hmm. bëgg la xeyna bëggel bëggel mbëggeel la wala lu mëna a doon hmm. mën mënta mu dem ba ci bir soppi ko mbañeel

yan structure nga ci nga ci liggéeyandoo ak liggéey bi euh, jaar ci bëgg a jël ndax màggal yi ku ne xam ne ni man lii ma dégg nii album bii ma dégg nii nii nii màggal ga moom dana dana demee naa moom <laughs> waaw moom xam nga ñun dañuy sant saa su ne bu ñu demee ba événement murit bu xew murit yi dañu xalaat ngir ñu gunge leen ci loolu dañ ciy sant loolu ak cant la bu ñu demee ba màggal tuuba murid di buñ ko jubee seen xel di dem ci menyang, meññang warna war nañoo yokk ak warna war nañoo yokk suñu pas-pas ci sëriñ bi war nañoo gën a jaaju loolu waral dañ dan def set, def wit titir, bi yon dañoo def onz titir, ngir begal soppe yi ngir wane aussi ni li fi sëriñ Saliou def tey la ko gën ku tey la ko loolu moo waral ñu génne ko tuddee ko àdduna bi sori na la mm-hmm. te lépp di ay ay ay tegtalam ndax ñun lépp lu ñuy wax rek ci ay kàddoom la ñu jëlee mm-hmm. ne dégg ko dégg ko mooy soññe ci jaam bi mm-hmm. li ko fi indi ci àddina toujours da coo da ci da ko war di ko bàyyi xel di dellu ci sunu borom xam ne àddina si saxut loo fi mën a am milliards yoo fi mën a am saa su ne yaa ngi koy am ngir bëgg lu ko yokk loolu moo lay war ne la àdduna loo ko daw daw daw doo ko jot tay ji bo amone avion li nga jima beugat benen avion manam xetu banex bo meuna am yaangi yaangi yaangi yaangi xey ngi wat banex lolou moy waral nit di yor alal nga jik jik gis ko sax moy def fi fi def parce que banex bi da koy lamb fure lolou moy mooy war ne àdduna da koy top bo son do ko jot jannatu ma xowa jannatu sopp yi lay war ma des defa man daw dañ na ceeg benn femme buy mbind mu <laughs> waaw yoon moom danaa ñëw siyaar ko. ñëw waaw ko xiin yi bagage waaw waaw dugg ci baas bi bett ko. waaw du sot du sot maanaam xam nga boo nee sot xam nga boo ne sot xam nga nit dana dana sotal nit ci lu dul dëgg mm-hmm. nit dana sosal nit ci lu dul dëgg waaye lii ñuy ànd ak sëñ Saal day ndigalu sëriñ Touba ñëpp war ci ànd ak moom waaw loolu la demee. waaw noonu la demee gis euh, euh, xanaa waaw xanaa gën a euh, wooteewaat ci album bi nga xam ni. Mhm. liggéey nañ ko ci anam bii ñu ko liggéeyee. Mhm. muy leneen lu bees loo xam ni wax naa ko ci njëlbeen. indi nañ ko te man loolu lañ ma xamee saa su rek génn foo xam ni kenn du fa génn. kenn waaw xew waaw gis naa la ngay gis naa la ngay dem rek. waaw topp ma rek naa ma lii lu doon nii. <laughs> waaw kon euh, na ñëpp xam ni ñu ngi koy jaayee ci internet bi. Mm-hmm. ku ko bëgg ak foo mën a ne ci àddina. Mm-hmm. boo demee ci site moomeen ña moomeen ña point com boo duggee di nga ko am di nga télécharger son yoo bëgg. Mm-hmm. boo demee iTunes Spotify foo bëgg dem boo demee di nga ko fa fekk. waaw ñu ci gërëm nag suñu euh, partenaires yi nga xam ne ànd nañ ceeg ñoom muy waa digitalis yor liggey ci liggey bu rafet macha allah mm, mm. waaye loolu yëpp it jugee ci borom xel mu sell mi di galo mm. sama ménageur waaw waaw billaay xale la waaw waaw mom mom mom moom kéemaan la xam nañ ko daana milieu mais il est formidable non danan non non danan danan danan ngi ni yag na gumbe ay danan aussi dëgg la deug la deug la ba tax na daal lolou lañ lolou daal moy message bi nga xamé ñu ngi koy jàllale et puis di wax murit ñu leen euh, chaque lendemain màggal damay woote sama buntu kër sant Serigne Saliou. loolu fan la janatu Maxwa. lendemain màggal gii day. màggal gii day amaat. la wala guddi gi. la. maa ngi guddi waaw guddi gi jëm fajar. moom la chaque lendemain màggal moom la ñuy tàggatoo soog a ñibbi maa ngi ci woo ñëpp di leen ko fàttali. googu sax nit ñi dem nañ ba miin ko bu ma leen ci woowul sax dañu ñëw waaye. xam nga ren jii màggal gi màggalu Qatar waaw ndax ren gii daañu leen du fi amee. waaw dana fi amee. waaw ni dana fi am. dëgg la. kon doon màggal gii màggalu pas-pas la. bu soo sàmm mu ne màggal ma am màggal gii moo ci dàqal. dëgg la ndax yoonu géej gi pas-pas ko lal kon màggal gii pas-pas moo koy. dëgg la eh, Imaam Cheikh mu ne màggal gii moo ci dàqal ndax borom ci ay nattu la amee màggal bi kon eh, màggal gi kon ñun màggal gi ci ci aw natt la ñu fekk ñu war a sant. dëgg la waaw mooy mooy mooy li may wax toujours rek sëñ Muntaxa mhm. la àdduna war a sant man waxuma murit yi mhm. waaye àdduna ñoo war a maase sant Cheikh Muntaxa Bachir mhm. ñaanal ko mu yàgg fi ñaanal ko ba yéene bu mu am ci liggéeyal Serigne Touba ndax na sëriñ Touba libéré woon jàmm ñëpp noonu la libéré waatee jàmm ñëpp ndax man wóor na ma ni bu dul woon a jëmmam ji ak kàddoom gii feebar bi du fi jóge de. kon ñepp war nañ ko sant te mo tijji lepp gat magal gi mo tijji buntu yépp mo tax lepp dox mo tax ku ne di woté kon lolu Sénégal war na ci jaar xam jappé Serigne Touba nañ ko jappé won ñu yokk jàppin wi ndax yalla kat lu mu def lu ne amna lu mu cey wone li xew ni ku ci yewuul doto yeewu ba tax na ñong koy sante mom serigne muntaha gindi na dimbali na ñep waaw jërëjëf. <laughs> jërëjëf Mame Niang <laughs>